خير ضيف أتى بالبشر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 fas yéene dikkaat rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen bi weeru koor gi tàmbulee ba tey jii di fukkeelu fan bi ak juróom-ñeent ni leen ko waxe woon ñu fas yéene dalal suñu mbokk sëriñ Mouhamad Diouf bàyyi ko ba Ndakaaru fas yéene ñëw ànd ak ñun ci wàll goo xam ne gu mu xam la ndax ci la liggéey ba retraité ci ñaareel ba tamit ci lay yëngatu fi nii di ko jàngale nekk ci def ak consultant ci wàll boobu muy wàll goo xam ne xaj na ñu baree bari xaw nañ ko umpule wala umpule nañ aslëf ci la nekk ci biir tey jii nag mu ñëw ngir indil ay leer ci wàll googu muy acte 3 wala ak tàmbale ko ci ak 2 ba ci acte 3 acte 3 de la décentralisation di loo xam ne mooy gox yi ak goxaat yi ndax ginnaaw léegi Sénégal dañ koo def dañ koo def ay gox yi ak goxaat gox ak gox gox ak goxaat yooyu ñu am ay compétence yoo xamante ne dañ leen koo féetale ñu war koo saytu te ci biir gox yi ak goxaat yi ci leen population bi dund kon képp koo xamante ne yaa ngi dund ci biir gox yooyu noonu war ngaa xam loolu nga xamante ne mooy ay compétence yoo xamante ne dañ koo féetale ñooñu te nga nekk ci biir loolu lu am solo loo xamante ne kenn ku nekk war na ko bàyyi xel bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci lu gàtt rek ci ay yëngutoom ginnaaw bi mu jeexalee ak njàngam ci la dugg fële ci école normale supérieure muy daar ji nga xamante ne fii lañuy tàggate jàngalekat yi bi mu fa tàggatoo ba noppi lañ ko affecté fële ci Kaolack mu nekk fa professeur histoire ak géographie mu jaar ci ay daara yu baree bari jàngale fa waaye ginnaaw bi mu jógewaat foofu dugg ci inam muy jeneen daar joo xamante ne dañu fay tàggate ay administration ay administrateur ginnaaw ba mu tàggatoo ci daara jooju ba noppi nag lañu ko yóbbu fële ci Louga muy liggéey ci wàll boobu ci wàllu administration jaar na kon Louga jóge fa tamit jaar fële ci Ndar ginnaaw ba ñoo affecté waat ko Ndakaaru ginnaaw ba nag ci mujj gi lañ ko indi fële ci ministère de l'intérieur ci 1995 ba 2001 foofu la nekkoon di liggéey nekkoon fa directeur des collectivité local kon foofu la liggéeyee ba retraité ginnaaw bi mu retraité tamit ginnaaw moom ci loolu la doon yëngatu nekk lu mu xam ci la ubbi benn cabinet benn cabinet boo xamante ne dañu fay dafay jàngale ak di fa tàggat ay nit ci wàllu administration nekk tamit consultant ci wàllu googu noonu ba tey kon mën nañu wax ne moom lii ñu ko jox tey jii nii lu mu xam la ndax da cee liggéey jàng ko di ko jàngal tamit teg ci kon ci tënk euh, kooku mooy ki nga xamante ne moom lañu dalal tey jii incha allah ni ma ko waxee léegi rek muy waxtaan ak ñun ci affaire wu euh, décentralisation waaw ñu. dalal nit suñu mbokk ma jóg bi tay di ki nga xamantene moy ñeeru dëkk bi mom tamit mu ànd ak mom inshallah ci tomb bi nga xamantene mom la serigne bi fasiyene waxtane bu serigne bi waxtane bu noppi inshallah allah jox kaddu bi serigne ma jóg bi tay su ko defé mom dana def synthèse dana def dana teunk li nga xamantene mom la serigne bi doon waxtane su noppé inshallah laaj yi nga xamantene mo aju ci lim doon waxtane su ko defee incha allah ñu dugg ci laaj yooyu loolu yëkkati jotaay bi kon ci tënk rek noonu la jotaay bi fas yéene doxee incha allah kon ci njalbeen moom danañu xamal bu ñu waxee acte 2 wala acte 3 de la décentralisation lan lañ ci jublu ak lan mooy avantage ak lan mooy inconvénients yi ci nekk ak jafe-jafe yooyu ci nekk naka lañuy def bay saafara ko kon incha allah loolu moom danañ indil ay leeral ci biir waxtaan wi ñu fàttali rek suba incha ci gaaw danañ fi dalal euh docteur euh jongu inshallah mu fasiyene yéene ànd ak ay yenen docteur ay médecin yo xamantene fasiyene ñu fi jotaay bi su ko defé fasiyene yéene ànd ak ñun ci fagaru mo gën faju prévention affaire prévention ak euh jangaro yi nga xamantene mo gëna tassaro ci suñu euh jamono ji ni ak lan moo koy waral ak lan mooy ciy saafara ak naka lañ koy moytoo incha allah loolu la médecin yi nga xamante ne médecin jong incha allah di médecin chef ci district bu Darou Moukhty fas yéene ànd ak yeneen docteur incha allah ñoom lañu fas yéene dalal suba su ko ñu ànd ak tam tomb ñu rek ne ñi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun ci rajo yi ak télévision yi ak internet bi euh, Darou Moukhty FM ñoom waxtaan wi ànd rek lañ koy def. ba tamit ñaafeen FM en direct la ñuy def waxtaan wi góorgóorlu FM bi nekk Kébémer tamit en direct la ñuy def waxtaan wi waaw euh, naka noonu yeneen rajo yi Benno FM ñoom 17h moom la ñuy teg waxtaan wi RFM 0h Sud FM 23h 22h30 Touba Mbacké FM ba tey Jant BFM 6h wala 0h Lamp Fall FM Touba 23h. mubarak FM Diourbel 23h ba tim réseau yi nga xamanteni ño nek digënti Touba ak dar musi réseau yi yëpp dañuy jàllale waxtan wi bu dee ci télévision yi lamfal TV Touba TV ak Diaspora 24 bu dee ci internet bi euh Info Touba Vision mourid TV wala azertouba.com Bichri TV ak Bawal Media yëpp dañuy ku ci dugg rek inshallah da nga ma a ànd ak. ñun ci waxtaan wi xam naa ne ñu jégalu rek incha allah ci xaw a yeex tàmbali gi waaye kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox sëriñ bi kàddu bi su ko defee mu ñëw ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ak ñun yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko asalaamaaleykum wa waa kay euh, auzu billahi de shaytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahim sëñ bi sëñ Mouhamed Mbacké ak kilifa yi ñu fi fekk. sëriñ Mahfouz Mbakke ak ñi ma àndal Dakar yépp maa ngi di gërëm di gërëm mbooloo mi sant di wax nag ne lii lu rëy la ci man ndax xam ne tem bi ngeen jël sant ma pour mu waxtaan ci ñi ko mënoon def nañ lool kon nag bu ma ne naa ñëw ci dëkki xam-xam bii di Daaru Muxti ah yaakaar naa ne sag sag mënu koo ëpp ma bugg ko rafetlu di gën a rafetlu nag ni nga xam ne noonu la ma sëñ Moustapha Ndiaye wone programme bi ngeen xam ne moom ngeen tëral ci lu jiitu bés bi ak bési tey ak bési ci topp loolu nag yaakaar naa ku xam Daaru Muxti doo wax ne guléet lu lu luñ fi fekk la kon nag ab liggéey la boo xam ne ngeen ko fekk di fexe pour continuer ko te li ma ci gën a neex mooy ngeen jël nag ay thèmes yoo xam ne dafa ànd ak jamono bi xam ne taalibe yi leen topp ak ñi leen yaakaar euh, xam naa ne lépp luy diine moom wax ngeen leen ko jàngale leen ngeen ko ci ngeen dëkk guddeeg bëccëg waaye nag taalibe yi dañu am ay itte di dund ci jamono bi kon nag ragal naa lépp loo xam ne lu am njëriñ la loo xam ne mën nañoo jànkonte ak moom mu nekk loo xam ne ay mun naa nekk jafe-jafe ci seen dund ci biir Sénégal ak li yaakaar naa di ci waxtaan ak ñoom moom itam lu am solo la kon nag loolu mënuma tàmbali waxtaan bi te àgguma ci ak yéen di leen féliciter di wax na ci ni ma gisee ni ngeen organisé woo li ngeen def nii lu jar a roy la te yaakaar naa daara yi ci Sénégal yëpp war nañ war nañu ko roy euh, thème bi nag ni ko sëriñ bi waxee xam naa ne thème bu gudd la waaye nag dañuy tënk bu ko defee laaj yi

danañu wax avantage mooy li nga xam ne mooy njëriñam ak enjeu ak li nga xam ne mooy soloom ak li nga xam ne moom la tubaab tuddee contrainte mooy ay jafe-jafe yoo xam ne daf ko làmbool ak li nga xam ne mooy perspective li ragal ne ca kanam mooy li nga xam ne moo koy saafara bu ko defee nag ragal naa ne ci laaj yi nga xam ne moom lañu war a laaj am na ci ay détails ay sew-sew yoo xam ne ci lañ ci dooro dugg kon nak waxtaan non la débé mënu ñu teub nak wax ci acte 3 de la décentralisation té waxu ñu lan moy acte 1 waxu ñu li acte 2 ndax acte 3 ci gattal moy ñettéli djégo bo xamné mom la décentralisation def ci bu Sénégal amé indépendance ak légui Sénégal nak ñëpp xam nañ ne 1960 la am indépendance li jiitu 1960 décentralisation yaatal bu gouvernement yaatal jël ay jox ko ay mu ngi ci réew yi la wax commune commune maire maire ay conseils municipaux ñoo population ñoo daan daje ci seen mairie fal maire ku leen jiital ak ay adjoint ak bureau lu ñuy wax bureau municipal loolu mooy li nga xam ne moo fi nekkoon démb ak bërka démb waaye nag li jiitu 1960 day ah maire yi emuñu woon dayoo emuñu woon ay responsabilité ndax ragal naa ñépp xam nañ ne amoon na fi lu ñuy wax quatre communes ñeenti communes muy Ndar ak gore ñoom lañ fi njëkk a créé commune teg ci Tëngéej 1880 teg ci Dakar def ko commune 1887 tekkul nag ne dëkk yooyu amuñu woon avant 1872 mooy ci la sos def Ndar commune def ko gore xaar ba 1880 ñu def ko euh, Tëngéej commune xaar ba 1887 ñu door a def Dakar commune waaye loolu tekkiwul ne nekkuñu woon ay dëkk ay dëkk lañu woon lu jiitu loolu parce que Ndar ñu ngi ko sos 1659 waaye bu ñu toogee ba 1872 ñu door ko def commune mooy wane ne jëmmal nañ ko jox ko conseil municipal jox ko maire ca 1872 lu ko jiitu nag loolu amuloon. Tëngéej amon na bu yàgg waye 1880 le door am conseil municipal ak nek am maire Dakar soso nañ ko bu yàgg ndax xam suñ mbokk lebu yi ñoko sos lu yàgg lu mot ñetti téméré at avant que ñu def commune waye commune nak buñ la ko défé moy dañ la jëmal jox la daraja jox la conseil municipal jox la maire nga yor sa budget ah yakarna lolu loolu mbokk mi ngeen dëkkal di seen taalibe di ma jóg bi tey yaakaar naa xam na ci dara kon nag loolu moo fi nekkoon waaye ñeenti communes yooyu nga xam ñoo nekkoon Ndar ak Gorée Tëngéej ak Dakar seen daraja ci commune dëkk ba nga xam ne falaa man tudd Kaolack àgguloon ci dayo boobu ndax xam nga ne ku ci citoyen français nga te te citoyen français donc commune yoyu dañ leen joxone daraja comme commune yi tugal comme commune yi France yeneen commune nak nga xamné ñun doomi baadoole ñoo fa dëkk ay commune indigène la woon ñun nekku ñoon ay citoyen français waaye indépendance nak bi amé nga xamné ñun ñëpp citoyen sénégalais lañ ci lañu nak défar defar li ñuy wax euh, commune de droit commun moy mairie amone yépp yaa xam Sikicoor la yaa xam Njaareem la yaa xam Louga la yaa xam Kaolack la Bignona Foundiougne dëkk yooyu yëpp ak Dakar ak Tëngéej ak Gorée yi ma tuddoon ñoo yem dayoo parce que boobu fekk na ñun am nañ indépendance alors léegi ñëpp citoyen sénégalais lañ waaye lu jiitu indépendance nag communes yi emu yoon dayoo amoon na commune de plein exercice mooy ñeent yooyu ma tudd ak commune yi nga xam ne commune mixte la genn wàllu conseil dañ koy fal genn wàllu conseil dañ koy nommé ndax gouverneur nekkoon Ndar moo ko doon nommé waaye bi ñu amee indépendance xaj ak seen yooyu ñu defoon ci ay parparloo te loolu tubaab bi daf ko defoon rek pour mën ñoo noot ndax moom la ñuy wax divise pour régner diviser pour régner buggu pour ñu ànd ndax buñ àndoon ñoon ñëpp nekk benn kon moom daf fi gaaw a jóge moo tax mu defoon diviser pour régner donc communes et emu yoon dayo ñu jël ay commune Berlin ñom ñu melni ay commune France jël yeneen commune ñuy commune yi nga xamné ño nek indigène moy ñi nga xamné amuñu amuñu ñu citoyen français bi amé indépendance nak nek ñun ñëpp citoyen sénégalais ci lañ def commune yi yëpp ñoo yem ñoo dayo alors loolu bu ko ko fatali ndax mo jitu acte 1 bi amé indépendance nak biñu jëlé ben loi bu ñu code

bu jara jàpp ci histoire yi décentralisation mooy yaatal bii ñu yaatal ba wàcce ay sañ-sañ ci kaw ba mu ñëw ci dëkk yi ak dëkk dëkkaani loolu mooy décentralisation ndax centralisation mooy ñu dajale lépp fenn ci capital bi nga xam ne bala daray sotti foofu ngay dem loolu mooy centraliser décentraliser nag mooy ñu jëlee ay sañ-sañ ca kaw di ko wàccee mu ñëw ci communes yi ñëw ci département yi ñëw ci communauté rurale ñëw ci région ba lu bari looy toppatoo jaratul ngay dem dakaar mu nga yem ci dëkk yooyu mu faju loolu mooy décentralisation décentralisation boobu nag ñetti jéego yi mu def ci la ñuy waxtaan jéego bu njëkk bi nag bi am solo mooy 1972 boobaak léegi ñeent fukki at la ak ñeent ndax ñun ñi dëkkoon ci àll bi dañ daan dégg rek décentralisation ndax commune moo moomoon décentralisation waaye ci la ñu créer communauté rurale communauté rurale nag euh, lu am solo la ndax ci la décentralisation duggee ci àll bi ndax décentralisation mu ngi amoon ci réew taax yi waaye 1972 bi nga xamee ne sos nañu communauté rural mu am présidente de communauté rurale ci gàttal ñaan naan ko PCR ca la décentralisation dugg nag ci àll bi waaye ba décentralisation mu ngi amoon ci réew taax yi bi mu ñëwee nag ci àll bi am na lu bari loo xam ne erreur la woon loo xam ne njuumte la woon ci décentralisation bi mu yemee ci réew taax yi loolu bi ñëwee ci 1972 ci communauté jéem nañ koo faj ndax am nañ ca ndam wala amuñ ca ndam nag kooku beneen affaire la waaye daal jéem nañ koo faj ana ban njuumte lañ defoon ci li jiitu 1972 bi nga xam ne ay commune dañ fi nekkoon mairie yooyu ñoom liñ doon dépensé ci budget bi budget bi nga xam ne mooy koppar yi nga xam ne leen askan wi dénk lañ ko doon dépensé daanaka li tubaab di wax action sociale moo ci ëppoon ay dépenses à dominante sociale ay loo xam ne daal luy suqali askan wi la ci ndimbal ak euh, jël ay koppar ne dañ koy joxe ci di dimbali nii bu korite jotee wala bu tabaski jotee wala ku am lakkale wala mbë mbënd bu amee ñu jàppale la yooyu daal lañ doon def te nag xam nga li nga xam ne mooy indi développement ci commune <laughs> monsieur le maire xam na ko alors il faut que mu am ay investissement investissement mooy ñu defar ay yoon tali dëkk bi defar courant lampe dëkk bi am courant euh, defar ay maternité defar ay dispensaire xale yi naan ko léegi poste de santé centre de santé sax mu ne am centre de santé moo ëpp poste de santé defar marché moderne ah ba nga xam ne du mel ni suma marché dëkk ba Kaolack di lakk at bu jot mu lakk loolu moom taamuñ ko ci marché sécuriser ko Euh, def ca li ñuy wax bouche d'incendie da nga ne bu takk bu bu ne dekk laa na lakk rek sapeur pompier yi ñu fa lay branché rapport rek dal di fay lakk gi yooyu mooy soppi dëkk ni nga xam loolu mooy xar kanamam bi ñu yëg ne dëkk bii kat mu ngi yokk mu ngi développé loolu moo war a tax décentralisation jóg waaye du caa gën rek pour jël xaalis bi di ko pasar pasaree di ko jox ma sàmba di ko jox ma demba euh, lu xew ñu jóg taxaw loolu moom taxul taxul moom budget boo xam ne ay nit ñoo fay seen lempo dañu war bu ñuy gis bu ñuy def liggéey ci dëkk bi ñi fay seen lempo gis seen bopp ci li ñu liggéey loolu mooy li nga xam ne moo tax commune jóg moo taxoon communauté rurale jóg nag ba mu moom ca na nga xam noonu la budget bindoo dañu dañu def li tubaab di wax corriger mooy dañu faj loolu nga xam ne njuumtaloon ci budget commune démb mom defaluñ ko sax dépenses de fonctionnement mom communautal fonctionnement mo taxone ñuy def dépenses passer passer yooyu mom dañ ko tëj tuuti lañ ci def li nga xam ne lañuy fay chef de village yi ak ñi nga xam ne ay juuti lañ dem ci marché louma yi di fayeku ay juuti sen pay ak li nga xam ne maison communautaire moy fa nga xam ne le euh président conseil rural bi ak conseil bi dégué li nga xam moy tax ñu mun ko peinture défarat ko chaque année donc ay entretien lolu mo doon dépense tuuti dépense de fonctionnement bu jëm ci euh communautaire dem nañ ba pour fay sax salaire mënu ñoo fay salaire ba communautaire pour mu fay ASCOM bi moy secrétaire bi nga xam moy mooy ak maire dañ ko considérer dañ ko défal contrat dañ ko def ko comme contractuel mais ni ku ñu sant liggéey mu def liguey bi ñu fay ko. waaye defuñ ko ci chapitre boo xam ne chapitre fonctionnement la donc euh, bu fekkoon ne dafa am ndox mu doon tuur di yàqu ci budget communautaire bon tëj nañ ko jël nag budget bi quatre-vingt-quinze pour cent yi boo ko xaajee téeméeri cër juróom-ñeent fukki ak juróom yépp ci investissement luy soppi euh, jëmmi communautaire bi lay doon ay yoon lay doon ay dispensaire ay école loolu mo taxone commune rurale jóg kon commune rurale bu fekkone ne tombé wul Sénégal traversé euh waxtu wo xamné dafa amone jafé jafé bu am ci budget rewmi euh am li tubaab doon wax plan d'ajustement structurel nga xamné digënté 80 ba 90 Sénégal dafa traversé bo xamné euh danaka euh bailleurs de fonds yi ay banque mondiale ay fonds monétaire ay réew yu ñu lëkkalool te ëpp ñu doole ñoo ñu doon jàppale waaye Sénégal euh, traverse na fii jamono boo xam ne jamono bu jafe la woon bu fekkoon ne amuñu amuñoon ak xereñ sax kon daanaka yëngu-yëngu ci am réew yi ñu wër mënoon am Sénégal waaye nag ragal naa ne ah ñaani sëriñ si itam ci la bokk ndax Sénégal traverse na fii diggante quatre-vingt ak quatre-vingt-dix ay jafe-jafe yoo xam ne ah lu nit gàtt gàtt xel war nga xam ne ah mbir mi baatin baatin laxasu na ci.

dugal ko ci suñ dëkk yi nga xam ne ñun ñi dëkkul Dakar dëkkuñu ci dëkk yooyu alors ñun ñu door a jot ci décentralisation loolu moo indi baati communauté rurale communauté rurale nag buñ ko doon firi baat bu rafet la ndax communauté mooy niñ dëkkee ci Sénégal nga xam ne ñun ñëpp ay communauté lañ ay mbooloo lañ famille boo gis benn lañ kuréel boo gis benn lañ bokk ndey bokk baay rural te ñu dëkk ci kaw yi loolu la tekki waaw

C'est acte 2 de la décentralisation momit l'acte ni acte 1 amé solo 1972 non la acte 2 de solo moy ñaar li djégo ñu def ci décentralisation djégo bu am solo la ndax contrôle bi nga xam ne moom lañ de contrôler collectivité locale collectivité locale est une bi commune ak communauté rurale ak région sax def nañ ko collectivité locale région gannaaw bi lañ ko dindi ci acte 3 waye ci acte 2 nekkoon nako contrôle biñu len ko koon contrôlé moo diisoon moom lañ tuddee woon contrôle de tutelle moy bala ngay def dara ministre de l'intérieur moo koy signé tam mu ci mairie ya xam budget la wala mu dem ci gouverneur wala ci préfet loolu nak diisoon na lool ci commune yi waaw mooy contrôle de tutelle teyit nak dafa xawoon niru ñak óolu ndax fekkee looy def il mu dem ba Dakar ñu signé ko mu door a dellu si Darou si loolu diis na lool wala mu dem ba Louga gële gouverneur signé ko mu door a ñëw ñu mun koo jëfee loolu lu diis la woon loolu moo doon contrôle de tutelle ci 1996 nag boobaag léegi ñaar fukki la di acte 2 de la décentralisation ci lañ ko soppi ñu dindi contrôle de tutelle boobu ndax dafa diisoon te ci li tardeel communes yi ak communauté rurale ci la bokkoon nit ki mënul population mënuñ koo fal fal ay conseil conseil dugg ci biir conseil municipal bi fal maire ba pare ñu ñàkk óolu di jël këyit bu mu def di ko yóbbu ba Louga ñu koy contrôler loolu doy na waat moo tax nag ci acte de 1996 ñu dindi ko bañ ko dindee dañ def dañ ko remplacer par li ñuy wax contrôle de légalité contrôle de légalité mooy ndaxam danañ la contrôler waaye boo awee yoon rek boo jaaree ci yoon légalité mooy lu aw ci yoon bu awee ci yoon rek baax la ñu ne nag am na ñaar fukki mbir yoo xam ne ak juróom-benn maire mu nu ci woon def dara conseil municipal mu ci woon def dara te préfet wala gouverneur wala ministre de l'intérieur signé wu affaire yi mbiri suuf ci la bokkoon budget bi ci la bokkoon lépp lu jëm ci tabax ci la bokkoon lépp loo xam ne dafa jëm ci lepp xaalis pour commune bi mën a liggéey liggéeyam ci la bokkoon muy ñaar fukki mbir yoo xam ne ak juróom-benn commune wala communauté mënuñ cee def dara te préfet wala gouverneur wala ministre de l'intérieur signé wu am na ci kayit yu jóge Kédougou ak fa Kédougou nekk ñu war ko indi ba ministère de l'intérieur ñu signé ko pour pour ñu mën ko wéyal léegi léeg kayit yooyu diggante Kédougou ak ministère de mu réer jafe-jafe nekkul noonu loolu jafe-jafe loolu moom la tubaab tuddee contrainte ab jafe-jafe loolu boo xam ne bi ñëwee nag ci acte 2 1980 1996 boo léegi ñaar fukki at la moom saafara nañ ko ñu ne daal. ñaar fukki mbir yooyu ak juróom-benn yi nga xam ne communauté rurale mënu cee def dara te gouverneur wala préfet wala ministre de l'intérieur signé wu ko mairie mënu cee def dara te ministre de l'intérieur signé wu ko ndax communauté rurale sax oyofalal nañ loon am na loo xam ne ci préfet la rek am na fi am ci gouverneur waaye commune moom comme Kédougou boobu ma wax moom ministre de l'intérieur lay jëm directement xoolal fa Kédougou nekk na war a benn ñu ne dañuy dimbale xale yi football xaw ma ODCAV xaw ma ORCAV la tudd. ci subvention bu leen mairie duggu defal pour que ñu mun a jënd bal jënd seen survêtement yooyu ñuy footballé mu war a dem ca ministère de l'intérieur ñu signé ko toog nañ ba nawet bi jeex gisuñu kayit boobu ba xale yi mujj nañ footballé seen équipement yi amoon daaw moom lañ mujj footballé loolu contrainte la woon jafe-jafe la woon waaye bañ ko yemalee dugg nag moom maire bi day maire bi day change tali bi rek dugg préfecture ñu signal ko mu ñëw dal di commencer liggéeyam loolu mooy contrôle de légalité contrôle bi lañ gën lañ njëkk a oyofal terewul nag lañ ko oyofal oyofal am na ci juróom-ñaari ponk yoo xam ne yooyu moom oyofaluñ ko lépp lu jëm ci koppar il faut que sous bii nekk Darou Moukhty mooy xool budget commune bii moo koy approuvé xool ndax aw na yoon lépp loo xam ne mu ngi aju ci leb bitim réew wala ci biir Sénégal emprunt il bu ñu defee délibération mooy wote nañ ko ci mairie bi il faut moom mu xool ko ndax lépp moom bu ko ab commune defee bu fekkee fayul état mooy fay kon nag état war naa xool li mairie bii lépp ndax fi nga koy dugal danañ ko danañ ko mun a rembourser wala duñ ko mun a rembourser te itam duñ ko seetaan mu leb ci banque boo xam ne banque boobu moom sous bi xam ne situation banque yëpp banque bi ci daanu la jëm banque bi xaalis ba fay nag nekkul xaalis bu set argent sale moom la ñu tuddee argent sale waaw foofu moom duñ la fa autoriser nga orienté la nga leb ci foo xam ne fu óor foo xam ne bu ëllëgee danga ko mun a remboursé te nga dugal ko foo xam ne foo mel ni defar ab marché defar abattoir nga xam ne ku fa liggéey da ngay fay bu ko defee loolu dafay yokk budget bi waaye du lay jël xaalis nga leb ko pare di ko def foo xam ne dañ koy pasar pasare bu ëllëgee doo mën a fay gouvernement di ko fay te du yor la gouvernement élif ndax mairie yi bëri nañ kon nag loolu

yaa xam tool la booy liggéey ne nañ ci wolof bët du yenu waaye xam na lu bopp attan ku nekk ci ñun xam nañ li nga attan doo ñëw fii ne dañ may jox 1000 hectares te wane woo projet wane woo machine wane woo loo xam ne mën na koo liggéey wala am nga ñoo xam ne mun nañ la jàppale nga liggéey am na ñoo xam ne bu ñu ko waxee amul problème nañ leen ko jox waaye am na ñoo xam ne bu ñu ko waxee duñ leen ko mën a jox parce que amuñu kattan ak moyen yoo xam ne mën nañ ko liggéey kon looloo tax sous-préfet di ko xool. di xool ndax amul benn yàq bu ci nekk donc yooyu juróom-ñaar la wala marché bokkul ak marché yi ñuy jaayee nag marché contrat la ñu ngi bugg a tabax ab dispensaire war a jëflanteeg benn entrepreneur le document ba ñuy liggéey kooka marché la tudd contrat la ñu xool ndax ak entrepreneur bi mën na ko wala mënu ko parce que entrepreneur yi ngi ñuy ci réew mi jox nañ leen fi ay liggéey bañ leen joxee avance nañ leen gëj a gis ñu dem loolu yàq la ñooñu nag. ñu ngi leen defal benn liste noire ku koy def foog na yaa ngi nax nit ñi yaa ngi yàqal sa bopp ndax xam ne ca ARMP liste boo xam ne ñu nga fa def yow boo soumissionné ci marché yi duñ ko nangu ndax jubuloo doo def liggéey bu baax amuloo ay koppar yu doy yu la mën a tax a exécuter marché bu 100 millions kon nag loolu aussi yaakaar naa bu fekkee ne dañ ne il faut que sous-préfet contrôler ko loolu aw na yoon donc yi nga xam ne moom lañ génne moom lañ ber ne bala ci mairie liggéey dañ koy contrôler boo ko seetloo lépp dafa aw yoon ndax pour bañ lu lor commune bi ci boppam la wala lu lor askan wi te loolu yëpp bu amee état bi nga xam ne moo ëmb commune yëpp moom mooy jóg kon nag bala muy jóg te gis naa ko ci seen thème yi kat loolu rafet naa ko foog naa ab docteur moo ko retraité ne euh, foog naa fagaru moo gën moo gën faju gis naa ko seen seen thème yi de loolu dem na solo lool moo tax na fagaru boobu pour gàttalu bala mairie bi yàqule te mairie bu yàqule askan bi yàqule ndax bu fekkee ne yow danga nekk maire liggéey liggéey bu rafet askan bi yëpp ñoo ci profité waaye bu fekkee ne yow li nga liggéey yàqu na askan bi yëpp ñoo ci loru kooku nag il faut koo xam ne moo fi toogal état mooy dox sa diggante askan wi fànq loolu bala muy am kooku nag mooy le de l'état moom la ñuy wax sous-préfet wala préfet wala gouverneur ñooñu dañ fi toogal dañ fi toogal état lañ fi toogal yow mii maire nag.

xalifa Sall bi tey nekk maire de la ville de Dakar nekkoon na maire de Grand Yoff donc quartier Dakar boo dégg yaa xam yaraax partout ndakaaru amoon na fukki maire yu ndaw ak juróom-ñeent 19 communes d'arrondissement Pikine am na fukki commune d'arrondissement ak juróom-benn ca acte 2 1996 Guédiawaye am juróomi commune Tëngéej am ñetti commune Thiès am ñetti commune foofu lañ ko yemale woon waaye ñun ñi doon def étude bi étudier woon nañ ndar pour def ku nekk xom ku xool ndar xam ne ndar moom mënoon naa nekk moom mun na bëri ay communes d'arrondissement ndax île bi nga xam ne fii la gouverneur bi nekk moom kooku moom dafa jëmal boppam nga dem Langue de Barbarie ah fale nga xam ne fa la senc yooyu nekk moom wax nopp nga ñëw soor fii marché teen jigéen nekk kooku moom commune boppam nga ñëw dëkk mel ni Kaolack découpé nañ ko en commune d'arrondissement waaye nag euh, comme lu ci bëri politique la woon alors président yem leen agum ci Dakar ak Géejawaay ak Pikine ak Tëngéej mun nañ cee yokk sax Thiès parce que jege nañu pour ñu mën koo contrôler bu fekkee ne reform boobu ci acte 2 bi baax na ñu yokk yeneen commune def leen ay commune d'arrondissement waaye nag ñëw nañ ba acte 3 te euh, yóbbuwuñu communes yooyu découpé wuñu leen ci ay commune d'arrondissement te loolu lu yombal liggéeyi mairie Dakar la ndax fukki fukki pàcc ak juróom-ñeent lañ lañ pàcc pàccal Dakar pàcc bu ci nekk am conseil municipal am ak maire di doxal bu ko defee nag yi ëpp solo boulevard yeeg commune yeeg lampe yeeg goudron yeeg yu liggéeyu rek moom la ville de dakaar bi nga xam moo la ëmb moom loolu la yor waaye lépp lu jëm ci liggéey ak lu ñeel askan wi ci commune d'arrondissement yooyu loolu moo doon moo doon acte deux kon nag acte un bi créé communauté amoon na solo waaye acte deux bi nga xam ne.

def lu ñuy wax transfert de compétence ci 96 amna na ñenti ñeenti compétence mooy juróom-ñeenti sañ-sañ yoo xam dañ ko jël djébal ko collectivité locale ya xam commune la ya xam communautaire la ya xam diwan bu mag bi leen ëmb tudd région parce que momit amon na fi Moustapha Ndiaye nekkoon na fi président du conseil régional de Louga Samba Khary Cissé nekkoon nako yalla yal na ko yàlla alors. Euh, kon ñooñu kon région nekkoon na fi collectivité locale ñu jëmal ko mu am conseil am budget niko commune amee commune rurale am am ko kon lolu moy acte 2 kon acte 2 li ëmb reyna na 1996 dindi nañ contrôle bu diis bi amone remplacer par contrôle bu gëna a oyof ñaar fukki mbir yi ñu doon contrôler diko saytu ba la muy ba ñu koy mëna wëyel ñu wàññi ko ba muy ba muy euh, juroom ñaar ñu wëlbatiku jël ay sañ-sañ lu mat juróom-ñeenti sañ yu am solo ci suuf ak permis de construire rek lépp ñu jël ko jébbal ko communes yi ba pare nag ne contrôle boobu daan dem ba Ndakaaru amatul fu gën a sori foo mën a dem pour ñu contrôle la nga mën a liggéey sa liggéey moo doon gouvernance de de Louga te loolu région de Louga moo ko def région bi waaye bu fekkee ne communes yi la moom préfet ba nga xam moo nekk ca commune bi rek moom mooy def contrôle bi bu nekkee commune rurale la comme Darou Moukhty ci jamono jooju moom sous-préfet bi moo ko doon contrôler kon nag jegeloon nañ contrôle bi kon loolu lu oyofaloon liggéey bi la jafe-jafe ba nag moo doon dañu formé wuloon dañu faluloon ay président conseil yoo xam ne war nañoo mën a def liggéey bi ndax nag mbir yi xam-xam moo ko yore bu fekkee ne dañ la jox ay sañ-sañ yu bari nga war koo doxal war nga koo xam boo ko xamul.

te dinaa def léegi li ñu wax ci tubaab comparaison sëñ bi comparaison ni ñu koy waxee ci olof méngale ngoog cey waay eh, ko firi ak gaaw waay méngale méngale dinaa méngale Maroc ak Sénégal ci fonds yooyu ndax boo jëlee fonds de dotation boobu nga xam ne Sénégal daf ko compe ci budget pour gugee ko communes yi ak fonds d'équipement des collectivités locales boo xam ne pour investissement la pour ñu def yoo xam ne dafa dañ dañ koy dañuy janoog moom yaa xam ay tali la piste de production ay dispensaires ay écoles looloo tax fonds d'équipement des collectivités locales jóg fonds de dotation nag moom départ de fonctionnement la garab jëm ci hôpital fourniture yu jëm ci école looloo tax fonds de dotation jóg dafa dañ ko méngale ak sañ-sañ yi nga xam ne moom lañ jébal collectivités locales yi 1996 alors léegi nag loolu yëpp boo ko jëlee ci ci état muy fonds de dotation

<laughs> téeméeri dërëm bu nekk jël ci fanwer bokku nak téeméeri bu nekk dërëm bu nekk jël ci juróom bokku fanwer sos 30 lañu jël pour dimbale ko ñom seen commune motax boy dem Maroc di visiter commune da ngay gis né carrément ñoo ëpp doolé commune Sénégal pourtant nag ëppuñ leen liberté ëpp leen ay compétences parce que Maroc royaume la moy nguur la nguur bour la fi république la kon bu dee liberté bu jëm ci code local rek Sénégal moo ko ëppale commune yi Maroc ndax nga ñuy wax wali le wali de Casablanca nga xam ne mooy gouverneur bi ak les kayit nga xam ne mooy préfet foofu ñooñu ni nga xamee ne noonu la ñu amee doole ci commune sous préfet ak préfet ak gouverneur amee kuñ ko doole ci décentralisation parce que roi royaume la fële dafa nekk royaume moo tax moom euh, da ngay sentir ne doole roi ba léegi bu ngi am ci kii bi fii nag démocratie bi avancé na moo tax nga yëg ne am na collectivités yi am nañ liberté waaye nag li population bi gis moom moo ëpp solo mooy bu ñu ma joxee liberté jox ma ay compétence ay sañ-sañ te joxuñ ma ay koppar yu ma liggéeyee sëriñ bi su ma liggéey du fay waaw Maroc nag ñoom gannaaw bu ñu amul sax liberté bu enn bi ñu am ñun jox lañ leen koppar yu doy de commune yaa ngay defar te ku ne cëpp Maroc <laughs> daw diggante Tanger ak Rabat wala nga daw diggante Rabat ak Fès da nga gis da ngay jël développement moom kenn la ko yaay janoo moom te développement nag sëriñ baa ngi koy wax ci oto bi sànq bi ñuy ñëw développement bu ñu buggee mu gaaw dafay jóge ci suuf jëm ci kaw mooy bu ñu suqalee dëkk yi nekk ci suuf muy communes yi ak communes rurales yi mooy yoon wi gën a gaaw pour réew développer waaye doo ñëw ne da ngay développer bopp bi ci kaw doo ñëw ci suuf <laughs> du noonu loolu décentralisation dëgg. mooy li ñuy wax développement local mooy développement boo xam ne yokkute ci koom-koom boo xam ne ñi ci suuf askan ci yëg yëg nañ ko teg nañ ci seen bët waaw kon nag loolu ci côté boobu moom Maroc moom euh, état yi ko raw ci Afrique moom bëriwul waaw Sénégal lañ ko mënoon méngale te Sénégal moyens yi nga xam ne moom la ñu jox communes yi ak départements yi dafa tuuti dëkk maire yi ñoom ma jóg bi ñi ñu ngi xeex pour que 5 pour cent yooyu ñu yok ko ci karam dana ci yex sëñ bi nak bima teunké acte 1 muy 1972 fi ñu sos communautaire ak ni mu nekkee coppite bu am solo ci développement askan bi ma wax la ko yàq la nga xamné moko moo ko freiné woon muy jafe-jafe bu Sénégal jànkonteel ci diiru fukkat yo xamné mo tambalé 1980 1990 ma wax acte 2 n'im amé solo muy 1996 nga xamné

wala gouverneur bu dee conseil régional bu Louga ca ba muy am 1996. Euh, ñu wëlbatiku nag jël ay sañ-sañ muy juróom-ñeenti sañ jébbal ko commune commune centrale ak région loolu lañu def 1996 wëlbatiku nag jël euh, sañ-sañ yooyu ñu leen jox mu yéen bu diis ñu téeñal leen ko dafa leen fonds de dotation la décentralisation ak fonds d'équipement des collectivités bi nga xam moo leen dimbale. ci fonctionnement dimbal leen ci lu yokk dëkk bi di investissement critiqué naa ko nag nee naa malgré nag mu nekk lu yokku yokku am na jafe-jafe mooy koppar yooyu ñoo doyul ndax 5 pour cent la ci budget état te boo demee dëkk bu mel ni Maroc 30 pour cent boo demee dëkk boo xam ne daanaka mun na wax dëkk bu bees la ndax amoon na coow am jaamarloo bu fa am ba yàlla dafa leen jàmm muy Rwanda 40 pour cent kon nag Sénégal bu bëggee wax ne moo raw ci décentralisation. loolu lu ñu lu ñuy wax la rek pour di ko damoo rek waaye amul rawul de parce que yeneen état yi nga xam ne ñoo leen rawoon comme ñun avancé wuñ ñoom jël nañ suñu exemple ba pare lépp loo xam ne lënt lënt la woon ci suñu yëf ñoom ñu fexe dindi ko waaye ñu ci bëri nag ci ñoom fii la ñu jàngee waaye gannaaw bu ñu leen wanee naka la ñoom bañ demee seen réew dañu ko def ba lu ñu doon jàmbat fii ñoom ñu dindi ko waaw Rwanda 40 pour cent du budget moom lañ jébal collectivités locales Maroc 30 pour cent lañ jébal collectivités Sénégal 5 pour cent yaakaar naa 5 pour cent nag waroon ak 30 pour cent ak 40 foofu la ñu toll kon nag loolu jafe-jafe la ndax boo ma joxee ay sañ-sañ jox ma liberté te joxaw ma moyen yu ma ko mën a employé daanaka moom euh, joxe bopp ro rocc la nañ lay lay nuru kon nag loolu la ñuy jéem a fànq nag ci acte 3 loolu nga xam ne critiqué naa ko ne contrainte la ne jafe-jafe la moom la ñuy jéem a fànq nag ci acte acte 3 lan mooy acte 3 ak tutura bobu de moy fi senegal tollu tay ci réforme mu nek nak lu am solo moy ñetteli djégo bu décentralisation def wax naa ne jéego bu ñëk bi di 1972 benen djégo bu mag boba légui 20 ans la ñaar fukki la 1996 légui nak ñu ngi ci 2016 depuis élection yi passé di 2014 senegal mu ngi dugg ci ab soppite coppite bu ñu tuddee réforme bu tudd acte 3 moy ñetteli jéego bu décentralisation def au Sénégal ñetteli jéego bobu nak dafa am ay mandarga yu ñu ko xamé <laughs> yu ñu ko xamé mandarga bi ci ñëk moy li tubaab tudé communalisation intégrale communalisation intégrale nak baat bu luxa la waaye lim tek rek moy communautaire amatul jël nañu communautaire fi nekkol yëpp def leen commune kooku moy mandarga bi ñëk xamé kay bu acte 3 am moy diwan yi région comme la région de Louga ñu defoon ko conseil régional loolu amatu légui département mom lañuy jëmmal mu am conseil départemental am président conseil départemental kon au lieu mu am ñetti collectivité locale commune commune région acte 3 doit ko simplifier simplifier niñ ko waxé ci ak yombal rek mu ngoog dañ koo yombal def ñaari collectivité locale commune ak département waaw jóge nañ ci ñetti collectivité locale ñëw ci ñaar kon xam nga loolu am na yombal muy département ak conseil départemental communes yi nga xam nag ne jëmal nañ leen ci biir acte 3 gannaaw bu ñu dindee titres yi communautaire amatul point boobu moo tudd communalisation intégrale jur na commune 557 mooy lan juróomi téeméer ak ak juróom fukk ak ak juróom ñaar jërëjëf sëñ bi Mbàkke 557 commune moo am Sénégal ci jamono bi may wax loolu nag ah xale yi jàng war nañ ko jàpp bu baax ndax léeg-léeg ci ay rajo communautaire ñu laaj laaj yooyu ne ko xam ko wax te nga fi jël neexal 557 commune moo am fi mu nekk juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom ñaar département yi nag ñoom àgguñu dayo boobu ñoom ñeent fukk lañ ak juróom ñeent fukki département ak juróom moo am Sénégal waaye nag euh, ñeen fukki département yooyu ak juróom am na ci ñett yoo xam ne amuñ conseil départemental ñoom faluñu kurél boo xam ne moo leen di toogal ca conseil départemental mooy Dakar ak Pikine ak Guédiawaye amuñ conseil départemental lu ko waral mooy suufi département Dakar ak suufi ville de Dakar ñoo yem suufi Pikine ak suufi département Pikine ñoo yem suufi Guédiawaye ak suufi département Guédiawaye ñoo yem ole lieu nag ñuy jox ay sañ-sañ ñoo xam ne suuf yi ñu élif ñoo yem mu nar a indi jàmmarlu ak xëccoo ñu far bàyyee compétence ville. préfet moom ñu ne ko toppatoo sa liggéeyu préfet comme ni ko doon defee dem bërki dem conseil départemental amul kon am na ñeent fukki département ak juróom waaye ñeent fukk ak ñaar ñoo ci am conseil départemental Dakar amul conseil départemental Pikine amu ko Guédiawaye amu ko bu ñu la laajee lu tax nga leen parce que seeni suuf ak suuf yi li li préfet élif ñoo yem bokkul ak Tëngéej Tëngéej moom dafa am ay communes yu bari ndax am na commune Tëngéej waaye am na commune Bargny am na Sébikotane am na jam ñaajo am na Yène am na ay commune bari Sangalkam Bambilor donc Tëngéej dafa am gannaaw moom am na conseil départemental waaw moom rek ci agglomération Cap-Vert moom rek moo am loolu Tëngéej moom am na ko am na conseil départemental kon nag conseil départementaux yi ñi nga xam ne dañ leen fale ci département ñu mel ni ay maire yor seen budget def dindi ñeent fukk ak ñaar la pourtant département yi ñeent fukk ak juróom la waaye def ci am ñett yoo xam ne amuñu conseil départemental mooy Dakar Pikine ak Guédiawaye léegi nag boo jëlee cinq cent cinquante sept communes nga jañax ci quarante deux départements cinq cent cinquante sept plus deux ñaata la waaw ci ñi mun mathématique djelom ben témer yu manki ben jere jeuf seigne bi mbacke koku mom lañ ko waxe ci français 500 500 599 ci olof muy djelom ben témer yu manki ben donc di djelom témer ak djelom gen fuk ak djelom ñet li moy nombre collectivité locale sénégal ci acte 3 acte 3 bi ñu nek collectivité locale mo eumbu batti commune ak département mbolé sène 599 la niko serigne bi firee di juróom benn téeméer yu manqué benn kon nak bari na journaliste yu juum ne euh, juróom benn téeméer la ak ñaar journaux yu bari boko li da ngay demee les 602 collecte locale 602 amul ñom ñom lutax lutax mod 602 ci ñom 3 yi nga xamné ne ci waroon de génne muy Dakar Tëngéej ak Guédiawaye lañ ci yokk té ñooñu seeni département amul conseil départemental commune la ville ba rek moo fa conseil départemental Nous lu am solo la ci 3 599 collectivités locales 42 départements ont am conseil départementaux ak 557 communes ont 599 collectivités locales et non 602 waaw loolu ab sew sew la bo

moy wax deug yalla simplifier nañ moy yombal nañ ndax ñetti xéti région commune commune rurale locales ci biir acte 3 def nañ ak yombal région mom ñu bayiko defatuñ def département collectivité local, ak commune jël communauté bi nga xamné mo des euh, communes, nous local, ñu gën ko def ko commune loolu lañ communalisation intégrale mooy amatul baatab communautaire amul loolu nag li tax ñu def ko bëri na waaye bi ci gën a fës mooy dañ daan dem ci réewi Afrique yi baati communautaire Sénégal rek la am amul ci yeneen réew yi bu ñu bëggee siixalee seen bopp ak yenn commune ci Burkina Faso wala ci Afrique du Sud wala ci Algérie ñu ne ah ñun dey commune lañ mën a siixaleel suñu bopp pour leen dimbale waaye bu dee communautaire moom ñun bokk bon bokkuñu askan ñun ñi ñuy siixaleel mooy ñu bokkal askan. kon nag loolu moo tax Sénégal dellu def marché arrière dal di jël ñi tuddoon communautal yépp tudde leen commune te loolu moom euh, Cameroun Cameroun jiit na ci Sénégal lu mat fukki at man visité naa Cameroun yépp waaye gisuma fa communautal lépp commune la comme ni ngeen defee seen commune fii kon nag loolu yaakaar naa leen <clears throat> lu ko gën am solo amul ñu jël nag li nga xam ne euh, mooy euh, ndimbal yooyu tudd fonds dotation ak fonds d'équipement des collectivités yi xam ne ñooy jàppale communes yi yooyu aussi ci biir acte trois yomb na yomb dugal nañ ko waaye ba léegi communes yi ñu ngi jàmbat ne dafa tuuti ñu amoon juróom-ñeenti sañ-sañ yoo xam ne jébaloon nañ ko communes yi ci acte deux waaye ci acte trois am na juróom yuy ñëw te juróom yooyu ñëw moom euh, seen dominante seen dominante économique mooy affaire économie lu yokk Euh, alal communes yi mu jóg moy élevage di cham gi di agriculture di di pêche di nap gi di tourisme ni ki ñii gan ñii ñew bitim rew di xol ay dëkk yu mel wala Touba wala ay bori geej place rafet et tout te ñooñu buñ fi ñëwee def fi weer wala ñaar ci économie mi tourisme ak hydraulique muy mbiri et assainissement mbiri cet hydraulique ak assainissement ñoo and juromi juróom yoyu agriculture élevage pêche tourisme hydraulique assainissement nek na yenen sañ-sañ yo xam dañ koy jël état def ci comp lu bari alors transférer ko jébal ko commune ak département lolu acte 3 waxna motax man ci suma conférence ak sumay bind dama wax ni acte 3 boko xolé

état qui dougal loxom way commune mu ngi ciy dugal loxoom loolu pour mu am il faut état aussi yok loxom ci ndimbal bi muy dimbalee commune transférer des compétences à dominante économique baxna moy li nga xam ne euh, euh compétences yooyu mo wax di élevage agriculture ak ñom sen waye aussi maire yi ñu ngi xex pour que ndimbal bobu ñu leen dimbal au lieu que bu nek 5 ci budget bi mu ag 15 la bataille actuelle des maires qui s'est plaidoyer avec l'État mooy porter les fonds de dotation le fonds d'équipement des collectivités locales mooy bi au moins 15 de la TVA la taxe sur la valeur ajoutée parce que 5 c'est cent rek la te loolu dafa oyof lool du tax alors nous euh, ñu mëna agal àggal seen fi agal àggal seen lolu nak lu am solo la mu am lo xamné itam ay mécanisme de financement la yoo xam ne moo war a yokk ci loolu mécanisme yooyu autorisé nañ communes yi léegi ñu leb leb ci ay banques yoo xam ne banque yu am doole la ah, wala ñu lancé li ñuy wax emprunt def ko ci journal mooy li Khalifa Sall defoon ba war a leb vingt milliards te am na ñu préparé pour leb ko ah dossier boobu nag ba léegi àggul waaye commune boo xam ne óolu nga sa bopp ci mun ngaa fay moom itam leb boobu autorisé nañ la ko. ndax dañuy ragal ne bu ñu yóbbee ci seen impôts yi ak juuti yi ci marché yi yooyu pour defar commune yi dana dana jafe moo tax il faut ñu leb def emprunt te créer ay marché yu am doole ay centre touristique yu am doole ah, créer foo xam ne ay koppar la fu mën a génn loolu ah, autorisé nañ leen ko alors autorisé nañ leen itam ñu euh, lëngoo ak ay société ba mun cee jël ay action société boo gis mu nekk ci gox bi te mu ngi dox mën nañ caa jël action mën nañoo jënd action mooy ñu bokk ca société ba ba société bu fekkee ne am na bénéfice bu ñu koy séddalee cër yi commune bi génn loolu aussi autorisé nañ leen ko kon nag loolu lu am solo la waaye nag li nga xam ne moom la communes yi war a gën a def mooy ñu lëkkale seen bopp ndax benn commune rek mënul lépp moom la olof di wax ne benn loxo rek du tàccu te wat gaal ak yëgoo ñoom ñëpp ñuy ànd di xàccandoor di di dóorandoo loolu il faut commune Darou Mouhty ban commune la amal frontière ban commune la nga amal frontière ba jóg commune nekk ci arrondissement bi ban nga dendal Darou Marnane Ngok yooyu nga dendal yëpp ngeen def li ñuy wax intercommunalité intercommunalité mooy ñu siixale seen bopp lëkkaloo mais am yoo xam dañ koy semp ci seen liggéey jébbal ko organisme boobu mooy lépp luy yoon kooko ko yor lépp luy bourse pour ñu doom jànge ndakaar wala jàng bitim réew kooko ko yor lépp lu jëm ci cet loolu ko yor donc ñu jël yi gën a diis dénk ko ñoon ñu jël yi oyof loolu mooy intercommunalité waaw ndax lu kenn mën ñaar a ko dàq te benn loxo rek du tàccu il faut ngeen ànd lëkkaloo di xàccandoor di dóorandoor kooku mooy intercommunalité leb baax na lool waaye comme leb lu yàgg-yàgg dangay ngay ñu fexe ba lëkkaloo ku nekk jël ci budget dara ñu am ab liggéey def ko moo gën a yomb moo gën a yomb leb bi kon nag loolu aussi lu am solo la alors mu am nag ay loo xam ne war nañ ko xool mooy fonds de dotation bi ñu leen di jox ak fonds d'équipement des collectivités locales bii dañ war a xool critères yi ñu koy joxe mooy ci ban anam lañ koy joxe ndax niñ ko gisee daal affaire bi daal xaw na am xaj ak seen da ngay gis commune boo xam ne suma commune a ko ëpp fuuf ñu jox ko cent millions man ñu jox ma dix te xaw ma ci yenn anam lañ ko joxe kon nag li gën a gaaw mooy ñu ut ay critères critères mooy est-ce que ci population bi la ñuy xool wala ci développement économique bi la ñuy xool wala est-ce que dañuy xool euh, ñaata xale yu jigéen ñoo dugg école. bima ma demee île du Cap-Vert Praia loolu laa fa fek ñom dañ jël le taux de scolarisation des filles par commune commune bu ëppalee ay xalé jigéen ñu jang ñu jox la fond bu ëpp ñu xol le taux d'enclave ba dëkk bi numu gëna gën a capital bi dëkk bi gëna a sore capital bi booy ëppale kooku moom bu ko xolé mom capital bi da naka du am dara ndax moom <laughs> mooy capital Tëngéej dina am aslëf Kaolack dañ am aslëf Daaru Musse koy ëppale parce que mo gëna a Dakar donc ñoom loolu la ko xolé parce que dañ bëgg différent développement bam diggante Darou Moussi ak Dakar que Darou Moussi mun ko rappel mun ko rattraper kon moo tax nu mu gën a nu muy gën a sori capital bi ñu koy gën a jox population bi nu mu gën a yokkoo ñu gën ko jox noo xamee ne impôts yi ci dëkk bi gën naa dugg le taux de rentrée fiscale l'impôt yi am fii Darou si est-ce que fay nañ koo la fayuñ ko fay nañ 80 pour cent ñu jox kooku mooy ëppale ki fay 50 pour cent est-ce rek lañ koy jox. ki fay 100 pour cent nag moom tabaarakalla moom bu ñu ko joxee moom yaakaar naa lépp lu mu bëggoon soog na ko daal loolu mooy critère critère objectif mooy ay nattukaay yoo xam ne ñëpp ci teg bët te mu leer naa ñu ne biti yu bëccëg waaw bu ko defee boobaa bu ci nekk nag dafa am lu ñuy wax ratio ci comptabilité bu ñu koy jox koo xam ne am nga 80 pour cent nangam ku am 50 pour cent nangam ku am 100 pour cent nangam ñu jël beneen critère taux de scolarisation des fi taux nangam nangam taux nangam yooyu yëpp bu ñu ko paree xool ci am loo ci am ñu def règle de trois divisé par nangam multiplié par li nga am divisé par nangam multiplié par bu ko defee da nga ci daal mu si am 200 millions wala 300 millions loolu moo gën a jaadu waaye bu buñ ko def rek li tubaab di wax à la tête du client mooy rek euh, joxe yaa ma neex buñ ko defee yaa ma neex loolu ànd ak bu buñ buggee mu ànd ak démocratie dañuy def ay critères ay xàmmekaay ay euh, yu am maanaa yoo xam ne ci yii la jaar pour def. té loolu amna pays africain yu ko def île du Cap-Vert bii nekk à 500 kilomètres Dakar ñom def nañ ko bu bu ko defee dootu am xaaj ak seen du am werante du am parpar loolu du am dal té comme dañu nek état bo xamné dafa bëri ay parti politique ñi jité li ñu war moytu moy jox ay commune lu am solo ñaan commune bi tel parti bo fa gañe commune bële tel parti mo fa gañe fi opposition nek ñom bëri la wuñu fi farle mo am lolu amul sax amul waye dama ne nañ ko moytu parce que mën na am kooku loolu bëgg dañ koo faj ci biir réforme bi ndax ab contrainte la mu am nag loo xam ne mooy mesure d'accompagnement mesure d'accompagnement sëñ bi lu ñu ko mën a firee nu ñu ko mën a firee jërëjëf jërëjëf ci jërëjëf ci gàggante bi mesure d'accompagnement nu ñu koy firee ci olof lépp loo xam ne daf lay jàppale te tax sa liggéey gën a mun a ñoŋ waaw loolu mooy mesure d'accompagnement lu yombal liggéey bi gunge ko gunge la yow mi ko yor jàppale la téeñal la ko yenul la ko ba yen bi dootul diis na ma waroon diise yooyu nag foofu lay jeexale suma exposé ci acte trois mooy euh, am na ay fonctionnaires yu bees yoo xam ne fal nañ leen ci euh, acte trois bi tudde ko fonction publique locale waaye fonctionnaire yooyu am nañ qualification boo mun a wax waaye nag pour communes yi fay leen dafay dafay dis ci ñoom ndax duñ leen fay solde mairie solde état lañ leen di fay kon nag la la nga xam ne mooy mesure d'accompagnement ba ma war a àndal mooy changer fiscalité locale mooy l'impôt bi nga xam ne moom lañ jël tey jox ko jox ko communes yi ak département yi il faut que changer te commune nag moo tax moo tax département parce que département moom amul impôt moom EPA état. cinq pour cent yooyu moo tax ñu koy compal di ko ci jox ak fonds d'équipement loolu la département yor waaye département moom am na budget waaye amul impôt budget mu mu ngi ko yaakaare ci ndimbal lu jóge ci état wala ndimbal lu jóge ci keneen yaa xam bailleur de la yaa xam kum siixaleel boppam la loolu la mooy département moom amul budget propre amul ressource propre alors kon nag war nañu fexe ba département comme am na budget mu am ressource propre ndax mënoo nekk collectivité am ab budget te amoo ay ressources ndax yaakaar état nga yaakaar waaye état na bu amee jafe-jafe kon fooy jëlee yow ressource ñi la war a dimbale bitim réew bu ñu la dimbalewul nag <coughs> loolu moom loolu moom du budget kooku moom warul tax commune jóg commune def comme ni commune amee Darou Mousty amee ay impôts am marché am ay juuteem am yooyu loolu la loolu la département war a am loolu ci mesure compagnement yi war a ànd ak moom moom la ci la topp ndax bu ñu ko deful kat ah wax dëgg yàlla may nañ leen ñu am ay fonctionnaires yu am solo waaye dañuy ragal ne bon fonctionnaires yooyu ñoom duñ am luñ leen fayee

li ngeen def nii fay ci Daaru Muxti xam acte trois réforme fan la tàmbalee fan la yem ana lan mooy jafe-jafe ana mooy saafara bi loolu waroon na mairie bu nekk ci 557 yi def ko ndax ñi nga xam ne ñoom lañ jox compétence yii ak yii nga xam ne mooy juróom yi ñëw te ñëwagul mooy yi ma wax élevage agriculture pêche yooyu ñu ngi ñëw mais ak yegg yooyu pour bu ñëwee ñu mën koo mën koo taaw mën koo téye il faut ñu gàttandu ko te lañ koy gatandoo xam-xam lay doon. xam-xam bobu formation mo koy joxe kon nak war nañ former élu locaux yi former maire yi former agent yi liggéey ak ñom pour que ñu gëna mokal ak tout trois bi kon nak lolu mom lu am solo la fi nga xam ne foofu lay jéxalé moy lolu yépp baxna way na na commune yi lëkkale sen bop département yi lëkkale sen bop ndax yeen bi leen yéen gis na bo xamné buñ ne wul sen bop euh di xàccandoor di dóorandoor a jël compétence yi gën a jafe ñu dénk ko organisme boobu nga xam ne moo tudd entente intercommunale wala entente interdépartementale ay mbootaay la yoo xam ne ay commune a ko bokk wala mbootaay yoo xam ne ay département ñoo ko bokk ñu jël yi ngi yaakaar ne diis na ci ñoom si jox leen ko ba pare jël ci seen budget jox kooka kooka bu ko defee organisme tam dem état dimbale ko ay bailleurs de fonds dimbale ko ñu mën a euh, fexe ba yëf yi gën a ñoom kon nag euh, waxtan waa nonu mu nek ay points yo xam ci histoire du Sénégal ak développement Sénégal ay points yu am solo la di acte 1 1972 acte 2 1996 taxu ñu na jóg li ñu danoon jóg moy acte 3 waye mëno teub nak di wax ci acte 3 té waxo acte 1 waxo acte 2 waaw ñu xam fan lañ joggé ak fan lañ yexsi kon fi ñu yexsi amna solo lool ndax département def nañ ko muy collecte locale région génne nañ ko ci collecte locale yokk nañ ci lu ma juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoom ñëpp sañ-sañ yi leen joxoon démb barki démb juróom-ñeent yi yokk nañ ci yeneen juróomi sañ-sañ muy fukki sañ-sañ ak ñeent loolu yëpp rafet na dana tax développement bi gën a jege askan wi moom la ñuy wax gestion de proximité saytu boo xam ne dafa jege askan bi kon nag

waaye nu mu gën a oyofe rek te ñu mën koo collecté mooy ñu mën koo ramasser def ko ci budget bi liggéeyee ko dëkk bi dina baax waaye nag comme amuñu doole nañu gën a lëkkaloo suñu bopp ndax lu kenn mën ñaar a ko dàq loolu yëpp am na solo waaye toll nañ ci jamono boo xam ne euh, ab liggéey bala muy mun a gaaw mun a ñoŋ xam-xam moo ko yore ndax gis ngeen fi internet gis fi les nouvelles technologies waaw yu yi yi euh, te wara a mën suqali nit ñi bëri na kon yoyu mënu mënuñoo nekk ñun commune euh, ni nekk décentralisation té jox ko gënaaw motax il faut ñu mettre l'accent sur la formation il faut ñu former ñi nga xamné ñom ñoom lañ fal ak maire yi nga xamné ñoo leen jité ak agent ya fay liggéey il faut ñu former leen kon nak buñ faté copar baax na lool waye nan nga koy yoré ak nan nga koy saytu ba def ci loo xam ne dana ñoŋ ci askan wi loolu nag xam-xam moo koy joxe moo tax moom itam il faut yokk ci formation sëñ bi ngeen jégal ma loolu laa bëggoon wax ci gàttal. jërëjëf sëriñ Mouhamed Diouf ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu aju ci euh, wàllu gox yi ak goxaat yi nga tàmbale ko ci acte jàll ci ba ci deux ñëw ba ci acte trois. ci wàllu décentralisation nga indi ko ci anam goo xamante ne anam gu matale la anam gu leer la tamit li ci ay avantages yëpp nga leeral ko li ci inconvénients yëpp nga leeral ko wax tamit indi ay propositions yoo xamante ne jàpp nga ne buñ jaaree lépp loo xamante ne jafe-jafe la ci incha allah yàlla mën na ko saafara kon ci turu muassasat Wafa bi huququl iman ñi ngi lay sant cant goo xamante ne am na fu mu tàmbali waaye am fu mu yam di ñaan yàlla guddal sa fan te yokk sa xam te liggéey bii nga xamante ne ci nga ci nga ci nga nekk yàlla defal la ci ndam kon ñu fàttali rek ne ñu ngi fii tamit ak maajo bu tey di moom tamit di koo xamante ne doom la ci dëkk bi waaye tamit yor ab liggéey ci lii nga xamante ne moom la sëñ bi doon waxtaane muy commune yi nga xamante ne mooy commune Darou Moukhty mooy ki ne moom moo ko jiite kon ginnaaw nga xam ne ci wàll googu la sëñ bi doon waxtaane moom tamit war na cee mën a am gis-gis jafe-jafe yi nga xamante ñoo ngi ciy jànkonteel ak yi nga xamante ne jàpp na ne buñ ci dana saafarawu kon dañ koy jox kàddu gi su ko mu tënk rek li nga xamante ne kara ñoo ngi nuyu ñëpp ji jiital ci nuyoo bi sëriñ euh, sëriñ abdou samad bi nga xam imam di ko jox suñu nuyoo ngir mu nuyul ñu sëriñ abbas mbàkke di ko ziar te di feddali suñu kóllëre ak suñu taalibe eh, ñun ay taalibe Thierno Ibrahim lañ te moom lañ bëgg di dunde ci waxtu wu ñu nekk ak fu ñu nekk bëgg nañ fu ñu xàmmee itam loolu gën a fës si li tax ñu xàmmeeñu di sant bu baax a baax ñi nga xam ne itam ñoo organiser mbir mi tey nekk na loo xam ne lu am solo la te luy leen di yeele ci beneen côté ndax xaj na mënoon ngeen a jàpp ne xam-xam bi mënoon naa yem ci biir julli gi ak woor gi mais xam ngeen ne loolu aussi am na leneen lu war a àndal ci dund gi ba ngeen dugal ci lii nekk thème boo xam thème bu am solo la te boo digloo thème yi fi jot a jàll ak yi ngeen di waajal itam da ngeen xam ne temu mu actualité la maanaam thème boo xam ne nii dañ koy dund nga xam ku ci génn mën ngaa daal di def benn jugement léegi ci li nga xam ne amoon na wala. Euh, ma ngay waaj ma ngay waaj a am wante dam di sant bu baax a baax suñu conférencier bii nga xam tam jàpp naa ne sax man moom tënkal na boppam wax ji parce que daanaka point yi mu wax yëpp point bu nekk tënkaat na ko ba képp koo xam ne woon nga li mu njëkkoon a wax sax boo fekkee fa muy tënk da nga xam li mu njëkkoon a wax lan la wante comme dañ ko baaxal ci conférence ci waxtaan yu mel nii te ñi ko woote tey ji woon ma ne ma naa ci wax sama xalaat itam surtout que may nekk maire Daaru si loolu itam di lu ñu yàlla defal loo xam ne ni itam euh, yaakaar naa lu am solo la loo xam war nañ ko ci santaat bu baax a baax ndax ñu ne yaay meeru Daaru Musti yombul donc su yàlla defee ñu nekk ko kon war nañ cee santaat bu baax a baax ndax borom dëkk bi moom dama koy wax toujours defar na dëkkam ba pare ku defar mu defaru ku defarut mu defaru kon nag suñu yàlla boolee ci yi nga xam ne li ñuy defar mënees na koo gis kooku moom dañu war a santaat bu baax a baax kon Serigne Mamadou xam comme ni ko tënkee ci acte 3 ne amna na acte 2 acte euh, acte 1 acte 2 ba acte 3 wante bi muy tàmbali itam bu ngeen ko digloo fàttali na leen li amoon avant indépendance kenn amoon nañ fi ñeenti commune ñu dox bañ am indépendance ñu léegi commune yëpp a tolloo parce que ñeenti communes yi njëkk ya leeral na leen ne foofu ku fa juddoo rek mën ngaa nekk ab tubaab doomu ndax da ngay am nationalité française Légui nak mais ñun suñu histoire carrément ci mbirum décentralisation wala collectivité locale mi ngi tambalé menes na ko wax ci 1972 bi nga xamné ci lañ indi communauté rurale donc motax mu né fofu moy premier acte ba ñu doog dem premier acte bobu itam wax la leen né jafé jafé yi nga xamné ne nañ ko ca ba waroon a toogaat ko jewaat jafé jafe yooyu nga xamné ne nañ ko ca Waxon na leen ci itam ne leen premier acte boobu li ci ëppoon ci daanaka communauté rurale moo ngi mel ne ay dépense sociales rek la doon def maanaam jàppale nit ku sonn ku am loraange wala xamul ne moom dafa defarub dëkkam mu jëm ca kanam léegi nag yeneen actes yi ñoo waroon a corriger loolu ba loolu tax na 1996 bi deuxième act bi ñëwee mu créer région xaw a yombal contrôle yi nga xam ne doon na am ci diggante nguur ak collectivité locale ndax loolu taxoon na mu mel ne décentralisation bi desoon na ba ñu gën contrôle yu bari euh, point yu bari wax na ko ci ñaar fukki point ak juróom-benn ñu dem ba nga xam ne yu ci bari sous-préfet wala préfet wala gouverneur euh, mën na def te gouverneur sax bi région amee la koy waaw la koy yemale euh, wante itam contrôle de légalité yi rappelé nako ak juróom ñenti compétence yi nga xamné état bi moko yoron mune li na dama koy jox. Euh, collectivité locale locales ñu liggéeyal mais wax avons itam ay ko dénk moyens yi nga moyens ci fonds de dotation wala fonds d'équipement des collectivités locales mais rappelé waat itam ne am xam yu am solo la collectivité locale ko def te waxtaan amu ca ak sous-préfet mo ngi budget wala ñu war a délibérer ci mbirum ci mbirum suuf yooyu ay exemple rek la wala marché public yi ñuy ñuy joxe mais fàttali na itam ne am na solo lool formation am ci élu yi moo xam ñi nga xam ne parce que askan wi moom buy fal lu ci ëpp politique lay doon donc parti politique ba ëpp doole mooy falu mën naa am ñam fal xaj na amuñu xam-xamu mën na jiite collectivité locale donc baaxoon na ci ñu former leen bu baax a baax pour ñu mëna doxal lool ñu wara doxal fond de dotation itam euh, insisté na ji te wax na len motax naron naroon ko laaj sax source de financement parce que baxon na ñi tok fi itam xam collectivité locale fan lay jëlab xaalisam parce que amna ño xam dañu japp né état mo koy jox xaalisam fekk na lamuy doxé ci biir dëkk ba la koy la koy jëlé bo jëlé dëkk bu melni daru Darou tay ji jii bi ñetti millions la toll té population daru Moussi mi ngi nekk ci ñeen fukki jooni nit ci recensement bu mujj bi tey ñu né pour euh, lempo daaru mu si ñetti junni la boo demee Mbadiane lempo ba nek juroom ñetti junni juroom ñetti millions so demee Ndoyeen lempo ba nek ñetti millions ak genn walu kon wa daru mu war nañ xolal xamné suñu bëggé bëggee lamp yi di tak suñu bëggé ndox mi di dem fépp itam il faut ku ci nek lam ci mëna jappé mu japp ko ci wax na aussi ci fonds d'équipement des collectivités locales so xoolee lu melni marché bu bees bu daru musi bi ñuy tawax ci loolu la jëgé fonds d'équipement des collectivités locales ci la état bu Sénégal financé bañu commencé di tabax marché bu bu bu Darou mais itam wax na len ni mu touté fonds yoyu ak ci yenn critères lañ koy joxe parce que bo xolé dëkk bu mel ne Darou Mouhty la ñeent fukk jooni nit ñoo fi do ju euh, mais ñaata école primaire ñoo am Darou ñaata lycée la am ñaata collège la am ñaata centre de santé la am ñaata poste de santé la am tey ji boo xoolee li koy jox ci fonds de dotation 22 millions la nga jëlaat benen dëkk bo xam ne Darou Mouhty moo ko ëpp loolu fépp mu am lu mat ñeen wala mu am ñaar fukk ak nangam wala mu am lu yées tuuti daaru mus kon fan lañ ko te bu fekkee ne dañu bëgg aussi askan wi dund ci dund goo xam ne ne du ñee morom parce que jox nañ ko loo xam waruñu ko jox faaw ñu wut critères yoo xam ne ni mooy tax mbir mi sax def na ay proposition ci ay critères ndax am na gis si yeneen yeneen dëkk donc su fekkee ne daaru mus dañuy euh, sénégal dañuy jël tva 5 ñu ne boo demee Maroc moom nee na leen 30 pour cent la boo demee Rwanda 40 pour cent la te TVA bi mooy ñun ñoo ko fay parce que boo demee jënd sa kafe gi am na TVA boo ñëwee jënd sa sukkar am na TVA loo jënd am na TVA état ne loolu ngeen doon fay nag danaa leen ci delloowaat mais lam ci delloowaat téeméer boo jël euh, juróom yi la la delloowaat wante nag bu duñu fàtte itam ne état itam am na lu ko war loo xam ne nii itam mu ngi koy liggéey ci biir réew mi xaj na ñun en tant que collectivité locale dañ jàpp ne loolu néew na mais war nañoo xam itam ne am na yeneen wareef yoo xam ne ni mënuñu ko te état moo koy jéem a moo koy jéem a def donc acte 2 bi mi ngi noonu ñëw na euh, conseil régional daal di daal di ñëw mais conseil régional moo ci yokk ak wàññi yenn contrôle yi mais mu daal di leen wax ne li taxoon tey jii ñu woote mooy acte 3 de la décentralisation mais mënuñu ko wax te xamuñu lan mooy acte 1 lan mooy acte 2 di ñëw ci acte 3 donc ñaar yooyu moo taxoon mu wax leen ko wax leen aussi lan mooy tax ñu mën a acte trois mooy jëlee nañ fi commune d'arrondissement jëlee nañ fi communauté rurale jëlee nañ fi région léegi département mooy mooy am am na compétence xam nañ ne war nañ ko collectivité locale donc ci tënk comme je. dog gi man nañ japp né loolu nekkoon na point yo xamné ne ni point yu yu am solo la parce que mi ngi wax ay mesures d'accompagnement mi ngi wax fonction publique locale tay ji so jëlé communauté rurale yu njëkkee benn ASCOM lañ amone ben agent tay ñu ne leen nekk ngeen commune ben agent bobu mo fa nekkat mais buñ ko duggalé ci fonction publique locale bi su féké ne collectivité locale bi moko wara war a fay dana metti ndax bu féké dañ ko yóbbu ci gris bo xamné ne ni collectivité locale bi amul lu mu ko fay da fay daal di metti parce que bo jëlé tay ji biñ ne ñu commune ngeen état bu njëkk moo daan fayal euh, xam naa euh, sëñ Mamadou dana ci ñëwaat mhm. bu njëkk état moo doon fay chauffeur moo doon fay ASCOM mhm. moo doon fay adjoint au maire mais léegi bi ñu nekkee commune def na leen yéenay fayal seen bopp loolu mais loolu fan la ko collectivité locale bi di jële mhm. fii ci biir dëkk bi la koy la koy jële donc dëkk bu dox bu nekk waa dëkk ba ñoo ko ñoo ko doxal donc moo tax li ngeen woote tey lu am solo la parce que dina tax bu ñu fi jógee dana am ñu sawaraa sax ne nañ woote waat beneen waxtaan boo xam ne danañ ko defaat pour gën a pour gën a mën a xam c'est vrai que ñun en tant que collectivité locale loolu war nañu parce que war nañ gën a mën a waxtaanat ak population bi parce que am na ñoo xam ne nii am na lu leen war duñ ko def parce que xamuñu ko suñ ko xamoon rek daañ ko def bu ñu xamoon ne lempo bi ñuy fay mooy tax lamp bi tàkk wala mooy tax li danañ gën a sawar ci fay ko danañ gën a sawar ci wax keneen aussi mu fay donc ñoo ngi leen di sant di leen gërëm te di am mbégte bu baax a baax ci li nga xam ne woo ngeen ñu tey ñu fekk lii te waroon a def synthèse bi te di jéggulu bu fekkee ne wax nañ ci loo xam ne waruñu ko woon a wax wala niñ ko waxee du noonu parce que itam bëgguñu itam wax ci noo xam ne nii day xaw a jege politique ndax sëñ Moustapha mi mu ko doon wax sànq ne ma nag euh, na nga moytoo jege politique booy wax ci wax ji donc loolu aussi doon naa ko ci jéem xaj na dana am ñu ko ci gis mais euh, jubluwuma ko ci wan ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. taxaw seetlu bu am solo bii nga xamante ni def na ko def nga ko ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane xam naa ne dañuy jégalu rek ci mbokk yi nga xam ne andi woon nañ fi ay laaj yu bari te mu aju ci li sëriñ doon waxtaanee waaye nag ñu xam ne ñaari minute moo des ci waxtu wi. xam naa ne kon benn laaj kese rek mooy mën a jàll. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, sëriñ bi gannaaw waxtaan bu am solo bi nga bi nga ñu àndil tey yaakaar naa dañu njëkkanteeg waxtu bi rek su ko defee kii da doon laaj mu ne ndax acte trois de la décentralisation bi nga xam ne moom nga doon waxtaanee. Mhm. ndax bokkut ci li nga xam ne day xeex euh, day néewal doole yenn kilifay diine yoo xam ne dañoo sañtoon seen dëkk. Mhm. mel ni da leen di da leen di xañ. yenn àq ak yelleef yi nga xam ne amoon nañ ko seen dëkk. jërëjëf laaj na laaj bu am solo waaye loolu moom taxul ak Trois jóg ak Trois li tax mu jóg mooy li ma leen wax mooy fi mu fekkoon décentralisation mu yokk te léegi ñi nga xam ne ñooy borom dëkk yi nu ñu dépendre ci autorité administrative muy sous-préfet ak préfet noonu lañu dépendre ci maire parce que dëkk léegi niñ ko définiré mooy commune ay somme de quartier et de village la kon nag borom dëkk yooyu ni ñuy liggéey ak préfet ak sous-préfet noonu la ñu war a ak ak maire bi kon nag loolu moom li li tax acte trois jóg moom pour defar la waye lepp luy fiwale ak lu yak mom taxul mu jóg mu nam nak li ñuy programme programme bokoy koy réaliser da ngay tombe am foy tollu yokkat sa djégo yokkat sa jéego moo tax ñoo def acte 3 ci 2013 2014 rek ah 2016 ñu gis résultat yëpp il faut moom ay jafe-jafe yoo xam ne ni muy feeñee lañu koy la koy fànqe muy feeñ di ko fànq di feeñ di ko fànq mu àgg ca kaw la jërëjëf. Euh, kii itam nee na ak 3 de la décentralisation nga xam dañ xaaj dëkk yi. Mhm. lu tax duñ ci laaj kàddu askan bi. Mhm. askan bi lu tax duñ ci laaj seen kàddu bu noppi doog a xaaj dëkk bi niñ ko bëgg a xaaj. <laughs> waaw loolu léegi xam nga moom wax dëgg yàlla. waruñoo mën a xaaj ab dëkk te laajuñu askan wi loolu moom bu fekkee ne am na loolu erreur la mooy lépp lu ñuy def bu fekkee da nga ne askan wi ngay liggéeyal lépp looy def da nga ciy ak askan wi mun na am nag loo xam ne technicien ak waa administratif ya ko def ca gox boobu ñoo juum waaye boo demee ca téere bi ñu tënk ak trois doo ci gis dara luy indi xajale ak seet waaye nag mbir a ngi nii ñu war koo defee nii. doomu aadama ak matadem xëy na defe ko neneen waaye loola taxul loo loola jóg loola taxul mu jóg waaw kon nag lépp lu ñuy war a def dañuy war a def li ñuy wax consertation participation kooku principe de décentralisation